221 Diaspora 221 pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées. salaamaaleykum seen internautes de Diaspora 221 ñu ngi toog ak naanaan bu mag ñu gëj ko gis gëj ko dégg gëj ko gis ci internet bi gëj non loolu bañ am connexion temps yi moom Pawlish boo bëggee dégg dég sa bës dafa wàññeeku de. sëñ Bada waaj jël na sa buzz. 6000 euh, jël na sa buzz. Euh, borom téléphone yi jël na sa buzz son bu jël na sa buzz. Euh, Pawlish Pawlish ci lan nga ne. <laughs> Pawlish teel micro bi. non Pawlish da ngay neex nga koy defee de. mais Pawlish maa ngi lay nuyu di la ziar. lan moo tax ñu fekk la sa kër invité woo ñu añ Pawlish. parce que ba ngeen ñëw ba ngeen woo nañ la. heure añ la. añ lañ la woo. mais normalement bu bu bu bu bu nit ñëwee heure añ sa dafa war a añ. ah yéen lan la ñëwoon leen añ woo kenn añ añ moom bu taajoo ñëpp dañoo añ. añ bu taajoo na ñëpp ñëw añ. gan dañ koy woo nag. gan waaw gan ngeen gan boo xam ne ngeen dugg ci biir. <laughs> mais Pawlish si loo ne gëj nañ la gis gëj nañ la gis si réseaux sociaux bi Pawlish dëkk bi yëngu na. Oh. soo bis jaxasoo na. a ah, li ko yëngal xam na ko li ko yëngal jarul ñu non ah kon kon kon nangu nga ni temps yi amoo bës. waaw nangu naa amoo bës temps yi waaw. yi moom amoo bës moom. waaw temps yi moom temps ñu yore bës bi. ah bépp la waaw li waxal li ma bëgg a laaj lépp ma tontu la nga tontu ma ci lépp. ci euh, question bi may njëkkee. sa digganteeg Wally. loo génn wax ci Omaro muy dëgg ak muy ñàkk bañ a nekk dëgg ni ñi gisee ko neneen. Mm. te sa digganteeg Wally du tey amaana bi ngay nekk ak moom. Omaro ñëwagul. Mhm. ñu bëri dem nañ bañ ne Pawlish amatul place bil faramaare mhm. ba ñëpp di guerre ak moom. Mhm. ci réseaux sociaux yeeg fépp fu mu waxati ci lu jëm ci Wally duñ ko déglu. ci man sama jàngat te li muy wax lu am la. parce que bu nee Wally à l'échelle internationale dese na dañuy ñoo ko fa war a yóbbu. loolu dëgg bu wér péng parce que démb toog naag nit mu ne ma Sénégal amul Wally amatul lu fi prouvé. kon à l'échelle internationale moo ko desee mm-hmm. ñiy wax loolu loo leen di wax ak ndax yow yaa ngi sa position bi nga nekkoon ba tey ou pas xam nga dëgg moom boo ci nekkee moom doo wéet mm-hmm. waaw amaan tey li may wax tamit dëgg la mm-hmm. li wax du caaxaan li may wax du bëgg li wax du bëgg neex waale boo bëgg li neex damay damay bëgg li ko dimbali ak li ko mm. jàngat mm. man wax rek laa mën ci moom du ma forcé mukk naan ko bëggal kii wala jàppal kii wala bàyyil kii xam la laa mën ci moom wax kese laa mën ci moom mënu wax mm-hmm. ko defee baax boo deful xayroon dégg nañu sa diggante ak Wally sax temps yi neexoo neexoo leen non maa moom amuñu benn problème àdduna gisatuñ la ci ay soirée waaw ah, parce que y'a pas de temps nag dama amatul lan nga nekk ba ñàkk temps ci li waxi dof kese laa nekk sa liggéey sama liggéey laa nekk waxi dof te waxi dof yi amaan na mi ngi may dimbali ma yóbbu mm. te temps amatul nag nit boo nekkee sa métier di la yóbbu fu ne di la dimbale ci ne temps amatul. service bi ñu gis ne dernière soirée Wally Seck Baara Mundi euh, soin bu télécom dafa ñëwoon foofu noonu buggoon ko may xaalis. gars yi jàpp ñu bëri ne dañ ko humilier. Ah. va far far mu mujjee am. mais moom moo humilier boppam. mu mhm. nit moom boo boo yoree 400. ba nga may 500 humilier sa bopp la 400 yi bu joxee dangay ngay génn naan dem mais boo yoree 500. maye woo ko bàyyi woo taxaw ci kaw seen naan dégguma te dégg nga li ñuy wax lépp toroxal mun tawee su loolu. Mhm. nit ñi. nañu bàyyi complexe nit ñi nañ bàyyi tur kenn ko ci yàlla ay maye tur mm-hmm. yàlla mooy maye tur tey am na yoo xam ne fay ay 60 millions mm-hmm. kenn du leen xam yàlla mooy doo dara suñ borom dimbali la tur yàllaa koy joxe kon dangay jàpp ni soin bu dafa nekk di forcé di ut yow xam nga ni loolu forcé la mm-hmm. taxaw taxaw public gëla sa mbuusu xaalis maye ci cinquante mille bëgg nu way la am nañ droit toroxal ko maye léegi lii boobu da ngay wàcc mënuñu yoruñu xaalis dèjà yóot xaalis ah. euh, mhm. du alal kenn du ko sàggane kon tey boo ko doon conseillé loo koy wax mu réglé daal def nànk mhm. xanaa xamoo àq ni looy liggéey am na dina àq di daal daal mhm. tey bu loo liggéey ci mbuus jàpp ci mbuus yi di saag saaga mbuus yi mbuus dina ñëw mësa bés dina ñëw ak mbuus dal la ak téléphone nga ko jàpp téléphone moom da koy sangoo di ko tuuroo di ko sànni ci kaw ca lu lay may li lay dimbali nga koy toroxal téléphone na ko toroxal téléphone ko toroxal de lu nit ko toroxal téléphone ak nit looy liggéey rek ci nit tas na lu ne mm-hmm. may na lu ne yóbbu na nit mm-hmm. fu ne ci àddina mm-hmm. nit loo xam ne ci ngay jariñu da nga koy da nga koy warmaal da nga koy valoriser day jël téléphone di ko sotteekoo di ko sànni di ko di wax lu yoo xam ne yoo ci waxuloo ko téléphone boo jaay yemal ci ab jaay lii daam ñu ko moom. Mm. daam ñu ko ñu mu jikki mm. yi mën na jikki waxi moom day bëgg a wax waxi dof. wala di kon na nga jàpp ne moom daf la bëgg a ci waxi ak jëfi parce que mu jàpp ne ni nga mel war na a mel noonu. dem bay def yow daal. da ngay naturel nit da naturel sa àddina. Mm. naturel mi bëgg a daal man daal dëkk bi dëkk bi doo métti de dafa métti trop mais fornaci yooyu bëy sax ne xaalis bi mu yor sax moomu ko. da ko war di yónnee Dubaay. xaalisu jàmbur la moom lay yóbbu ci soirée yi di nappe. bu génnee 7 millions wala 10 millions mais cent yi cent yi mu may yooyu la moom li mu mayewul du ko moom. loolu moom xam naa benn jaay la ko wax rek. Euh. da euh. ah, ko ko wax. maa hmm. ko téléphone hmm, loolu nga loolu nga yaakaar xaalisam la xaalisam la kon daal conseil bi nga koy jox mooy moom na réglé. te bës kenn du ko forcer. Ah. bëgg nit ñi xam la tamit. Ah. warul tax ngay def yenn yi. def yenn yi waaw mais ba wax lu amul. Mhm. moo ko liggéey de. Mhm. moo ko moom kon li mu yor xaalisam la. ki ne loolu li yor du xaalisam kooku loo koy wax. Mhm. ko koo xam ne raw na ko a mu ëppale ko wala mu waaw. xam nga àddina moom concurrence dafa am. waaw ki ne alalam moo ko moom nag alalam la. li mu ci def ak li mu ci defal moom la intéressé mais li ma koy bañal bu amul sax day perte perte yi mooy. ba mhm. nga wane maa ëpp te yàlla rek moo yàlla rek moo am fi kenn amul yàlla moo am. Mhm. nit ñi dañoo war a nit ñi dañoo def fàtte yàlla da lay dénk un million. loo ci def boo ko sàgganee dootu la mayati un million. Mhm. nit boo xaaj da nga koy valoriser looy liggéey man sama waxi dof yi ma ko ci café yaw billahi wallahi. du ma ko café moo may defal lépp ci waat moo tax da nga koo valoriser du ma dem tour man dëj benn yoon laa fay dem. duma dem génte mhm. duma dem laabaan duma dama xam li ma par passage sax Cheikhou Kouyaté papaam moo fi wàññeeku démb yàlla xaare àjjana waaw waaw bëggoon nañ nga jaale ko waaw yal ko Cheikhou ku baax la yal ko yàlla mhm. xaare àjjana mhm. suuf oyof ci coow biis ak coow ñoo ànd récemment gis nañ ne Omaro jënd na ay terrain ñeneen génn na terrain yooyu amul coow li bëri waxi suuf la te xale laa a wax suuf da lay rey waxi suuf doo ci wax doo wax parce que dafa am dafa am lu ma àndal daa am lu ñi ci nekk di wax ñoom ban fit lañ am ba war a waxee noonu ñoom ñëpp lay suuf day rey du wax waxi suuf hmm? suuf suuf du wax xam ne fa ko fekk suuf suñu la yàlla dogal ba ba nit ñi ko jaay aw ma dara ci ñoom ñoom fa lañ toll instant hmm. ku ne wax maa mën lii ku ne ne maa def lii prouver lañ toll hmm. wala di xeex wala yu ñàkk fay dugg ci yu fay la ñoom ñoo neen la man man dépassé naa loolu ñuy def. Mhm. waxi suuf duma ci wax. waxi suuf doo ci wax mais teewul showbiz la te ci yow yaa ngi suuf la mosuma gis ma wax showbiz àndul ak suuf. àndul ak suuf ànd ak lébu ko moom ak ak jaay suuf man du ma lébu du ma jaaykatu suuf. <laughs> Pawlish man mosuma gis lii Pawlish daaw ay responsabilité ci coow lu am nga ne doo ci wax yow. parce que li may li ma ci wax ñoruma te suuf si aw ma ci. Mhm. sama yaay aw ma ci sama papa aw ma ci sama famille kenn amu ci lu ma ci wax ci waxi suufu jàmbur sama yoon ci waxi suufu jàmbur. ñoo koy seeni suuf la bu dee am nañ ay suuf kay dañ ko kii ay suuf du ma su ma wax suuf loo sax mën naa cee génn àddina du ma ci wax yow hmm. déedéet hmm. kon waxi suuf yi daal du duñ mës a dégg Pawlish wax du ma ci ba at tey tukki du ma lii ma ci laaj ni ci laay lay tontu ku ma ci mën a laaj ci laa lay tontu soobee ak soobis mi ngi neex maa ngi koy yàq maa ngi ma neex noo gisee showbiz bi baaxul lu bon la lu yées la yàqante bi ñu ngi def lu bon ñu ngi wax di jëf lu bon. Hmm. te lii fii lay àdduna la yëpp day jeex. nañ suuraale kon gars yi dañuy yàqante. yàqante day bari nañ suuraale su dañuy màgget ñoom ñëpp te bu ñu màggatee war bu ñu bu demee jàkka ci nan la ñuy bu ma de lu ma def maa ko tey. mature ma de maa ne nii bi doon wax waxi doof. a coow am Pawlish taxaw fay coow li. waaw déggoo man la ak Amady dégg la. waaw déggoo yaa wax Adamo waaw non non dafa am loo xam ne ñaan ko si njëkk mu arrêté. ànd bu yàgg. ay audio waru ko yàq. bu yàgg. audio waru koo yàq. te gis nañ récemment Amady Badiane baaru mu ni bii passé ñëwul. waaw moom moom moom la. moom la te gaa yaa laam-laamee. Eh, sax dañ ko mettre au frigo daal. non non non non non non non dafa dem États-Unis. Amady daa dem États-Unis kon loolu exclusivité la. dinañ laaj loo xam. te des hmm. fois ngeen wax loo xam ne doo leen ko xam. Hmm. waale dañoo yàgg seen diggante. dara mhm. mënu ko yàq ci àddina. Mhm. te nit ñi nañ xam ne ñun dañoo bëgg waale. Mhm. billahi wallahi cofeel gi ñu am ci moom man Adama mosuma gis nit ku ko am ci moom. rawal Adama day jugee dëkk dëkk ndax waale kese. di fay hôtelam ndax waale kese waale mosu ko fayal ab néegam. kon sa digganteeg Adamo ay xarit lañ yàlla moo ko def ñu amoon nañ fi ñu mais xolam benn xolam yàlla moom la ko may. Mhm. Euh, bu du bëgg ko xiif damay wax jikkoom. Mhm. du bëgg ko mar du bëgg ko jàmbat. day jël kartam xaalis mu saxee ci xol Europe soo fa jëndee dara lu ndaw day jar cinquante euros mooy CFA fii trente deux mille cinq cent. Mhm. te da ci jënd yu bëree bëri di ko dimbale ay nit man fekkee naa. day nekk Europe ay sénégalais woo ko fii ñoo xam ne ñu ngi nii xas ñun. ñu ngi seeni waajur woo ko wala ñoom ñu woo ko ne li leen bëgg aadama yónnee ko man ko lépp naan ak sutura man des fois sax a koy dal xam nga man dafa man dafa am na ma bàkkoo man du ma def di wax mm-hmm. mais ëpp ma ko ci àddina yàlla bàyyi ma fii may xew ñi jéem ci man mënuñ ci man dara ñi wax ci man mënuñ ci man ba tey maa ngi xew damay mm-hmm. xew ba doyal ba doy sëg bàyyi man lay neex rek ma bàyyi te Sénégal yi xam naa fi ma leen jaar maîtriser naa leen xam naa fu ma leen xam na xam naa ko xam nit xamal xam sa kër gën a neex ci àddina mm-hmm. fi ngay duggee fi nga war a génnee noonu laa xamee Sénégal yi man lay neex rek ma xeewi ma lay neex ma seen bàyyi noppalu tuuti te liggéey bu ne dafa am conseil. Mhm. kon jamono jii ci conseil nga ne. déedéet moo tax dafa mel mais sa diggante ak Adamo bëgg naa ñu taxaw fa parce que yombul. yombul lu mel ni coow lii mu wóor na lii lu war a mënoon tas famille. du tas lu tas mbokk. lu tas ay ànd. ay yërmandeem rek la yow Pawlish ñu xamee la si waxi dof nga génn fële fay lépp. am na am na yu bari yoo xam ne sax bu na àdduna tukki nit dina dar gémminam yuuxu te du ëmmadi. kon li nga xam bëri na non te du ëmmadi de am na ñoo xam ne bu ñu génnoo seen bopp at ñu tas seen i bàq ramdaan yàqu ba jeex tàkk. billahi wallahi mais maa ne ko. kon dafa mel ni dafa mel ni damay da ngay confirmer li ñu di wax biir ramdaan bëggantewuñ seen biir. ah buñ bëggantee de ah bariwul de xaw ma bëggante xaw ma jàppante nañ waaye man daal licencié daal. Hmm. waaye daal ko baax la. da da ngay gis sax ko ànd nit ki nga xas nit ki ñu génne la baax na très bien li nga def noonu la te ñoom ñooy nañ xoolaat seen biir nañ xoolaat seen bopp ñoom nañ xoolaat kon jot na biir ramdam ñu xoolaat seen biir xoolante seen biir sax hmm. parce que noonu lañ mel kon bëggante bi amul xaw ma am na wala amul waaye nañ xoolaat seen biir daal and hmm. ànd day nekk benn hmm. ànd day am yërmante ànd day am suturante ànd day am wóolante ànd day am ngëmante ànd day am ànd ba amul suturante du ànd ànd ba amul tegante bët du ànd ànd dañuy tegante ki war na am lii ki yàlla mooy cërale yàllay xool li ko neex mu def yàllay maye dara jàmm yàllay xool ko kiraam moom yàlla xool màkkaam ku ko ñëw mhm. samp ko def ci yow loo xam ne yoo ko nit nit naan ñoo xam ne yàlla ngi def ci man dara am na ñoo xam ne man mhm. ma génn ma du sama mhm. kàttan du sama doole yàllaay xool ko neex mu cërale doomu aadama yàlla ma cërale lii ma def lu dëgg dëgg la na ñu bari nii nii nii nii waxatoo waxi dof yaa ngi wax waxi nit moo tax ma lay déglu déedéet boo ma déglu da ngay absenté parce que dama wax xam nga xam nga kuy wax waxi dof duñ ko déglu mais kiy wax waxi nit ñu wër que ne kii li wax dafa dafa dafa dafa tombeek àdduna dafa tombeek jamono parce que jamono yàqu jamono mooy yàqu goro amatul i sax xam nga àdduna bi am na toll nañ foo xamante ne ni nit ñi bëgganteetuñu te nit ñaa ngi ànd te bëggante wuñu des fois nit dina la ree ndek te bëgg des fois nga ànd nit kon tey boo waxee wax ji des fois nga ànd ak nit nga gis daay boo waroon tàkk nga ñëw fay ko te mu wóor na ne sa diggante ak ñooñu sax amaana neexul kon yow waxi dox bi wax ma ko. des fois nga ànd ak nit wóolu ko sa lépp. di ko mhm. wax sa lépp. Mhm. di ko wax ba wax ko nooy nekkee ak sa jabar. Mhm. di ko wax wax di ko wax yu sa di ko lépp sa vie sa sa jabar sa nga foog ne yaa ci ne boo génnee mu yàq la lu yomb. mu yàq la yàq boo xam ne yow après yow da da kersa. Oh, kii xam ne ko maa ngi direct alo do wo woma appe vidéo woma appe vidéo woma appe vidéo waaw woma <coughs> appel vidéo rek yow woma appel vidéo yow it tamit c'est incomprendre waaw àddina moo toll foofu nit mm-hmm. amatoo droit sax léegi wax sa yaay li la li ngay dund sa àddina parce mm-hmm. que nit wóolatul kenn ci àddina sa yaay na xaritam kon kenn xam nga sa yaay mun na am xaritam. Mm-hmm. wax ko xaritam mu maa ngi nii en direct di gis nga. maa ngi nii maa ngi nii maa ngi ci kanam. yaa ngi comprendre àddina. àdduna mm-hmm. Mm-hmm. àdduna moo toll foofu. nit wóolu nit moo wóolootul ci àddina. wóolootul parce sa yaay. sa yaay bi nga war a waxtaanal sa yaay génn wax ko xaritam xaritam génn tas ko fépp léegi koy wóolu léegi. kenn dootoo koy wóolu àdduna moo toll foofu te àdduna bi day gën a yàqu internet bi day gën a yàq àddina barke salaatul ala nabi tiktok bi day gën a yàq àddina kon fi ñu jëm baaxul de non dañuy fi ñu jëm baaxul de billaahi wallaahi fi ñu jëm baaxul non fi ñu jëm yàqu na pare xanaa ñu gën a bonaat mais yàqu na pare Pawlish Mbaye ak Showbiz ba tey ba tey euh, buñ Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez cent 221tv et optez pour des informations fiables et vérifiées.